1999-2020 ñaar fukki at ak benn Sénégal xaatim ap loi bi nga xamné day tere lepp lu jëm ci xarafal jigen wayé boobu ba léegi mel na ni ja mi jafé jafé rek la jur ndax rek lepp lu nga ñu ko sentu gis ñu ko fa na ci salmi rew mi nga xamné kat japp nañ né xalé nga xamné amagu ñu fukki at ak juróom téeméer boo si jël juroom ñaar fukk ak ñett yi dañ leen xarafal li wane ni kat combat bi mom sori na lool jeex. dama gis ay acteurs yu takku lañ. ñu engagé wu maanaam ñu takk jug nañ pour xeex benn boo pratique boo xamante ni wala benn doxalin boo xamante ni mi ngi fi woon daf fi donc doxalin boo xamante ni dañ ko fi fekk nag pour jëlee ko fi du yomb. aada cosaan ñun dañ ko fi fekk comme dañ ko fi fekk nag bëgg a jël yoon teg ci kawam dina xaw a métti waaye du du nekk lu mënul nekk. ginnaaw bu ñu gëmee ni ñoom war nañoo taxawaat baax seetluwaat li nga xam ne moom mooy pexe yi ñu war a lal ci diwaan bët sàllimi réew mi acteurs yi nga xam ne bokk nañu ci mbir mi tànn na ñetti fan yi nga xam ne dañ koy weccoo xalaat jëm ci ni ñu war a def ba loi bi ñu mën ko appliquer ni mu waree bay tegg fi xarafal jigéen conséquences yu metti yi xarafal yi indi ci jigéen loolu ci yokk tax luwaat bi taxaw la waaye ñaar fukki at ak benn ba mu amee ba léegi ñi ngi ko continuer di ko def ñi ngi continuer di ko def loi bi appliqué wuñu ko parce que ay la yëwan soo xoolee statistiques yi loi bi appliquer wuñ ko y a peu de cas de jurisprudence dénonciation mo amul limu bëggone aussi ñu tek ci suñu tak bu baaxa baax modi buñu adopter loi rek bu nek ñu am communicateur traditionnel bo xamné ne ci xarañ ñu jël loi bi jox ko mu jang ko lak ko ci kàllaama population bobu pour ñu jot ko bu ñu fi dañu wara am campagne de sensibilisation ci gox yépp nak ba xam nak lepp lu ñu waron def nak ci xamlé def nañ ko et eh bien ku bëggul xam nak li ci dess modi